bu fekkee ne daal suuf sa ka fay suul moo ko moom mbaa boog day àll bu yaatu rek boo xam ne moom waaxu sàkk la kon mën na faa def ab armeel ba noppi tabax ko bu fekkee jubluwu ca lu may ñu xàmmee rek ne fee ab armeel moo fa nekk mën na koo tabax mën na koo làkk-làkkal te jublu ci rek ak xàmmee rek ñu xàmmee ne foofa armeel la fa nekk ba tey lu mel ne teg fa ab bant rek boo xam na nga koy xàmmee mbaa teg fa aw doj te bañ caa bind dara dara ba tey dagan na dañuy bañ nag nee na ñu bind ci alquran ndax mën naa am loolu indi ñu sabantal alquran ja te loolu kon lu araam lay doon moo tax boo dee xool saraaba muy wax naa kamaaye joosu wadduhu xashabatin aw xajarin alayhi bila naqshin wa illa kuriha ila an yakoon an naqshu bi qur'anin fa tadharu alxurmatu xawfa al imtihaan xanaa nag li xaw a doy waar mooy léegi suñu armeel yi moom ñëpp moom suuf si ñëpp fa sañ a suul te daanaka itam ñëppay def tabax yooyu ñi ko mën ñëpp daal dañuy tabax wërale ko baa ñu tabax sax yëkkati ba noppi xaddu ko daal moo ci xaw a doy waar
wala wala yu xasilu du sang almuslimu jullit ba abaahu baayam ba alkaafira ba di ab yéefara wala yu duxiluhu te du ko dugal xabrahu bàmmeelam ba illaa an yaxaafa ndare ba dafa ragal an yaddi xamu sànku fal yuwaari yi kon na ko suturaal ab jullit bu baayam faatu woon te bàyyi ba yéefar bu fekkee waa diine ma nga fa da koy bàyyee waa diine ma rek ñooñu toppatoo ko yoonam bañ caa nekk lu sañ a bokk ci gunge baag toppatoo baag dara du ko sañ a dugal ci bàmmeelam mbaa dara lu may nag amul kenn koy toppatoo ku may moom su boobaa kon na ko gas rek suul noonu ngir ormaal jëmmi doomi aadama ji waaye nag du ko jëmale suñ xibla du ko jëmale seen xibla li tax du ko jëmale suñ xibla mooy bokkutoon ci suñ xibla li tax du ko jëmale seen xibla ñoom mooy wërta gëm ni seen seen xibla ji am na njëriñ ba di ko ci jëmale waaw bu ko jëmale day mel ne kon daa fonk la la bàyyam nekkoon wallax du laat maanaam bàmmeel bi ñuy wax laat ahab bu moo gën a sopp ilaa ahli xilmi jëm ci ñun xam-xam mina shaqi ci bàmmeel bi ñuy wax shaq chaq moom ñoom nañu aada woon mooy dañuy gas rek menn kan tëral néew bi ci digg bi daal di jël ay móoli ban wërale ko ba wër ñu xadd kaw gi ñoom ba loolu moo nekkoon chaq bu dee ci ñoom mu ne nag li ñuy wax bàmmeelu laat nag moo gën bàmmeelu laat moom lay bëgg a wax waxoo moom ay ñu fara mooy bu dee fi gasal lil mayiti ñeel néew ba taxatal jur fi ca ron pax ma fii xaa iti xiblatul xabri ci sàkketu xibla bàmmeel ba wala nga ne ci miiru xibla bàmmeel ba nee na nag moom allah du laat moom gannaaw gannaaw bu ñu gasee pax mi nii ba mu kaare dañuy gasaat nag ci penku ba dañuy muroon ci penku ba maanaam xam nga bu ñu ko defee nii pax ba noppi ba mu def nii am pax ba noppi fi nga xam ne moo féete penku ba dañ fay muroon nag ca suuf ga ba néew bi xaj fa ñu dugal ko nag foofu ci biir nag sakk waaw daal di sakk diggante bu pax mi sakk pax mi itam xam nga gas nañ pax mi nii ba noppi rek nga xam ne bu doon chaq moom dañ koy tëral ci digg bi rek bu dee ñoom. daal di def ci pegg bi ay mooliban daal di xadd kaw gi daal di mu jeex waaye fii nag moom gannaaw bi nga defee kan bi noonu ba noppi nag ca penku ba ca miiru xibla bàmmeel bi ca penku ba foofu ngay def am pax moo xam ne bi xaj na ci nga bés ko nag mu dugg ci biir nga sakk digganteem ak paxu mag mi nag ba noppi sakk paxu mag mi loolu la ñuy wax laat nag waaye moom suuf yëpp mënu ko day aajowoo muy suuf su dëgër dëgër moo tax mu ne wa zalika loolee isa kaanat mooy nem nekk na turbatan di suuf sulbatan suy aji dëgër nga xam ne laata te xayalu du go du golliku wala laata te xabtaxu tey du daggatoo day nekk suuf dëgër soo xam doo gas ba yàgg muy sottiku wala mu jékki-jékki dag ay morso def ay morso dagg déedéet suuf dëgër moo koy man wa gazalika naka noonee fooñ la la defee foon bi rasulillahi ci yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nag bàmmeel bi mel noonu lañ defaloon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baabu li ab bunt la fi salaati ci jullee xalal janaayis ci tàddiya tàddiya mooy néew ya rek wa duxaay ak ñaan lil mayiti ñeel ab néew day bëgg a wax nag jullee ab néew ak ñaan ngañ koy ñaanal wa takbiiru kabar ga xalal janaasati ci tàdd ga arbaxu takbiraati ñeenti kabar la maanaam boo jullee ab néew allahu akbar danga ko wax yenti yoon kabar gi farata la yéene ja farata la ñaan nga itam farata la
ba tey wax ga asalaamaaleykum farata la waaye nag yéene ja moom da nga cey delluwaat leeral ko ndax boo julleeb néew da nga yéene jëmm joojee teew jullee ko te boole ca teewluwaale ne jullee gi ma koy jullee fardu kifaaya la boo xasee teewlu nag jullee jëmm joojee teew rek ñàkk gaa teewluwaale ne jullee gi fardu kifaaya la du ca wàññi dara moom du tee julli ga wér ba tey bu fekkee dangaa jàpp ne jëmm joojee nga jullee jigéen la diggante yow moom kat gannaaw ba nga noppee seetlu nga ne góor la baa nga jàpp ne góor la diggante yow moom jigéen la ba tey loolu du wàññi dara ba tey boo jàpp ne jëmm ji ngay jullee moodu jóoba diggante yow gannaaw ba bañ jullee ba noppi moodu njaay la ba tey du wàññi dara ndax dañoo yéene woon a jullee jëmm ja teew rek te jullee nañ ko kon baax na loolu nag wuute naag bu fekkoon ne dafa jàpp ne ki muy jullee kenn la diggante yoo kat ba mu sëlmalee seetlu nañ ne ñaara fa nekkoon mbaalu ëpp ñaar di dañ leen a muur ci jaar rek dañ leen du def ci kees rek bokk leen muur xamutoon ne ñaar la mbaa ñett moom mu jullee kenn dong kon dañuy baamu jullee ga jullee leen ñoom ñëpp lu may na nga xam ne ba mu jàppee ne kenn la kenn ka da ko ràññeeloon ci yéeneem daal di koy jullee gannaaw ba nag mu door a xam ne kookee mu ràññeeloon du moom dong am na keneen kum ci nekk lan mbaalu ëpp kenn su boobaa kam yéene woon ba ràññeel ko jullee ko moom baax na waaye nag ku bokkut ak kam ràññeeloon tam àndan ca moom da koy jullee waat ba tey nga seetlu ne bu fekkee dafa am kenn kum yéene woon ci ràññeel ne moom lay jullee gannaaw ba nag ñu seet ne kenn rek nekk foon ci ñu faatu matoon na ñaar mbaa ñu ëpp ko te moom sax kam ràññeeloon ci yéene farul bokk ca ñooñee su boobaa kon ñoom ñëpp la ñuy maase baamuwaat jullee leen loolu nag mën na maa tudd baat yi rek ni nga xam ne moom la ñëwee ci alfawaakihu dawaani ndax nga mën koo gën a jàpp daa wax ne wa sifatu niyati an yaqsida bi qalbihi assalaata ala hada almayiti alxaadiri maha istixdaari annaha fardu kifayatin fa in gafala an hada alaxiri lam yadurra wa tasixu salaatuhu kama tasixu law salla alayha ma ictiqaadi annaha unsa fa tabayyana annaha zakar aw bilxaks aw annaha fulaanun ثم تبين أنها غيره لأن مقصوده الشخص الحاضر بين يديه بخلاف ما لو كان في النعش اثنان أو أكثر واعتقد أن ما فيه واحد فإنها تعاد على الجميع حيث كان الواحد غير معين وإلا أعيدت على غير المعين الذي نواه وأما لو نوى واحدا بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر ولي وليس فيهما أو فيهم من عينه فإنها تعاد على الجميع وأما لو نوى الصلاة على من في النعش مع اعتقاد أنه جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت الصلاة لأن الواحد أو الاثنين بعض الجماعة لمجوخ نك موي dafa yéene woon jullee mboolem ña nekk ci biir jaat ga jàpp ne mbooloo lañ gannaaw ba nag ndekete yoo matuñu mbooloo kenn rek la wala ñaar nga xam ne kon jullee mbooloo la leen joxoon defe woon ne mbooloo lañ ndekete yoo kenn ci nekkoon mbaa ñaar ci nekkoon su boobaa dana baax ndax mbooloo ëmbaali na kenn ëmbaali na ñaar ba tey wasa yi at yi ana duxaa waajibun بعد كل تكبيرة ولو على المأموم فليس كقراءة أم القرآن خلف الإمام بل تعاد الصلاة لتركه لأن كل واحد شافه مطلوب بالدعاء batay ñu seetlu ne bu dee julleeg néew moom ni ilimaan war a ñaane noonu la maamoom itam kenn ku ci nekk war a ñaan gannaaw boo kàbbaree kàbbar bu ne bokkut ak julli farata nga xam nañ ne bu ilimaan jàngee rek jàngaale na maamoom déedéet bu dee fii julleeg néew moom ni ilimaan war a ñaane ci gannaaw bu kàbbaree noonu la kenn ku ne ci maamoom yi itam war a ñaane loolu nag aajuwaanaa xàmmee bu baax a baax ñaan gi nag moom am nag jàpp ndal ndax ni mu koy bëgg a leerale amul genn ñaan guñ dogu ne moom rek ngay wax moom booy ñaan moom loo wax rek mu baax waaye nag
yar faxam dana yëkkati yedday yaari loxoom fii ulaahunna ci aji jëkk seen wa in rafaxandeem yëkkati na fii kulli takbiratin ci bépp kàbbar falaa ba asa kon déet waay nee na allahu akbar ba ngay njëkk wax moom sopp nañ nga yëkkati say loxo la ca gën nag mooy allahu akbar yi ca des nga bañ a yëkkati say loxo te tudd rek kàbbar bi ci saw làmmiñ teewul nag boo yëkkatee say loxo itam du ko tee baax waaye bañ ngaa defa gën wa insha ndeem soob na ko daxaa mu ñaan baax lu arbaxin ci gannaaw ñeenteelu kàbbar su ma yu salli mu topp mu door a salmal wa insha ndeem soob na ko sallama mu salmal baax dara raabixati ci gannaaw kàbbaru ñeenteel ba makaanuhoo ci bérébam ba mooy fa saasay saasa ñu ne boo àggee ci allahu akbar te nga xam ne mooy ba ci mujj muy bu ñeenteel ba bu la neexee ñaan teg ca door a sëlmal bu la neexee jékki-jékki sëlmal fa saasa li ci ëpp nag mooy da ngay ñaan door a sëlmal dan la wax sax ñaan gi nga xam ne sopp nañ nga wax ko bala ngaa sëlmal waaye nag boo kaabaroon kaabaru ñeenteel daal jékki-jékki ne asalaamaaleykum it mu baax bu yàq fa dina taxaw alimaamu ilimaan ba fi rajuli ci góor xinda wasatihi fa diggam ba wa fil mar'ati bu dee ci jigéen xinda man ki bay xaa fa yaari mbaggam ya boo dee jiite góor moom dañoo bëgg nga tolloog ndigg la taxaw fa tolloo ndigg la yow ilimaan bi nga xam ne yaa koy jiite bu dee jigéen na nga taxaw fa tolloog mbagg ya wasalaamu salmal ba mina salaati jullee xaal janaais ci tàdd ya taslimatul ab salmal la waahidatun bu di benn xafiyat bi aj woyof lil imaam yi ñeel ilimaan wal maamoom yi ak maamoom maanaam wax nga asalaamaaleykum ci julleeg néew gi farata la kon salmal ba nag dañ koy wax ndànk ilimaan da ko yëkkati ndànk rek ba ñu sës ci moom ci maamu yi dégg ko maamu itam yëkkati ndànk rek jërul wax ca kaw li kaw wa fi salaat nekk na ci jullee xalal mayit ci néew xiiraatun ab dog min al ajri ci aw yoor wa xiiraatun akub dog fi xudóori def ni ci teewee suulam nga wa daalika loolee fi tamsiiri ca misaal ga mislu jabali uhud kem doju uhud la sawaaban ci aw yool nee na nag fekke julleeg néew ga ak fekke rob ba lu ci nekk dafa bari tuyaaba lool lool ba yonante bi misaale ko doju uhud nga xam ne montagne la boo ko amoon ci wurus wëlbatiku def ko ci yoonu yàlla na tuyaaba jay baree boo fekkee julleeg néew mbaa nga fekke rob ba ba tey noon nga noon nga ci am tuyaaba ji bari noon ngay am na ko addis ba andee moo di manit tabaxa janaazata muslimin imaanan waxtisaaban wa kaana ma'aha xataa yusalla alayha wa yufraxa min dafniha fa innahu yarjixu min al ajri bi qiraatayni kullu qiraatin mislu uhud wa man salla alayha suma rajaxa qabla an tudd fana fa innahu yarjihu bi qiraatin kon nee na ku topp ci néew jullit di ko gunge ngir gëm yàlla ak sàkku tiyaaba fexe ba ànd ca jullee ga ànd ca bañ denc ko kon nag am ñaari dog ci tuyaaba dog bu ca nekk dana toll ni doju Uhud xam ne montagne mu rëy rëy la koo xam daa ànd ca jullee ga nag gannaaw ba mu wàññi ko te xaarul ba ñu denc ko kon benn xiraat maanaam benn dog lay am bu ñu nee nag dogub tuyaaba ba muy am day toll doju uxut am nañu ko firee ni ma ko waxee woon léegi mel ne boo amoon lu toll ne doju uxut ci wuru sa xaalis nga def ko ci yoonu yàlla ni ngi saraxe ko na tuyaaba jay toll noonu la su sa tuyaabay toll fii am nañu ne déedéet dañoo bëgg a wax ne tuyaaba ja nga ci am day rëy rëy ba nga xam ne bu ñu ko tegoon ci balaas teg doju uxut ci balaas su boobaa tuyaaba jay tolloog doju uxut ci diisaay xëy na sax doju uxut xajul ci balaas waaye waxin rek la ba tey bu la neexee nga ne rek tuyaaba ja day diis a diis rëy rëy ba nga xam ne boo piis boo peese woon tuyaaba ja peese doju uxut tuyaaba ja toll ne doju uxut ci diisaay akub rëyaay
te itam bu te itam bu néew ya limoo néew bu ne nga am ca loola wa yuqaal def na wax fi duhaa yi ci ñaan xalal mayiti ci néew xëyru shay'in lu dul dara mahdoodin lu luñ limité mooy lu ñu ràññeel nee na ñaan gi ñaanal ab néew nag moom néewnu ñaan sàngam lay doon boo ko bàyyee du baax déedéet loo ñaan rek mu baax am na ñaan goo xam nag moom lañ gën a miin ñu ne moo ñëw ci téereb Malik ba tàmbale allahumma innahu habduka wa ibnu habdika wa ibnu amatika ñaan la gu siiw waaye nag des koy góoral di ko jigéenal di ko ñaaral di ko mboolool waaye lu mu ci mën doon rek ñaan goo ñaan rek moom mu baax wa zalika loolee kulluhu léppam waasiun aji dagan la maanaam ñaan goo ñaan rek baax na wa min mustahsani ma bokk na ci la ñu rafet li la nga xam ne xii la waxee fi ne ko fii zalika ci loolee ay yu kabbira mu kàbbar su ma yàqool topp mu wax ne alhamdu xeeti cant yëpp lillahi ajee la ñeel yàlla àll si yàlla mi nga xam ne amaata rey na wa axyaa amaata rey na ko ko soob wa axyaa te mu desal muy dund ko ko soob walhamdu cant ga lillahi ajee la ñeel yàlla àll si yàlla mi nga xam ne yuxi yi dana dund dana dekkal yuxi yi dana dekkal almawta way faatu ya laxoo ñeel na ko alxasamatu màgg ga wal kibriyaa ak rëy ga wal mulku ak nguur ga wal xudrat ak kàttan ga wa sanaaw ak yëkkati googa waxuma te moom xadir mooy aji àttan xaalaa kulli seen ci mépp mbir nee na bokk na ci lañ rafetlu boo kàbbaree nga teg ci ñaan gii ngay tàmbalee sant yàlla mi nga xam ne ci coobareem moo fi jëlee kii ngay jullee bàyyi fi ñenn ñi mel na yow mi taxaw di ko jullee ngeen desane fi ba ba mu koy soob te itam mooy dekkal ña faatu moom rek moo màgg moo moom nguur moo am kàttan moo kawe moo mën lépp allahuma yow buur bi salli yàlla na nga dool tedd nga xalaa muhammadin ci muhammad wa xalaa ali muhammad ak ñuy muhammad tama sallayta na nga terale woon wa rahimta ak na nga yërëme woon wa baarakta ak na nga barkeele woon xalaa ibrahim ci ibrahim wa xalaa ali ibrahim ak ñuy ibrahim fil alamin ci mindee fi innaka naka yow innaka naka yow xamidun ku ñu sant nga majidun te aji tedd nga maanaam boo sante yàlla nga si julli ci yonante bi allahuma salli jooju ba ci xamidun majidun loolu dañ koy jàppee mu xaw a nekk fatiha julleeg néew nga xam ne mën ngaa wax lii ba noppi tàmbalee ko tegaat ci geneen ñaan gu la soob bu la neexee teg ci nag gii mu lay bëgg a wax gii mu lay bëgg a wax na mu daa xaw a gudd tuuti ñu bari duñ ko mokkal duñ ko jàng waaye mën ngaa tàmbalee gii ba noppi teg ca gée nga def bi ne moo ñëw ci téereb Malik ba ba geneen gu la soob ci ci yeneen ñaan yi des xam na ngay jàppe lii rek moom muy fatiha ji tàmbali alhamdu ji ba ci majidun ji bu la neexee teg ci lii mu la wax nag mooy nga teg ci ne allahuma yow buur bi innahu naka moom xabdu ko sa jaam bu góor la boobu na xabdi ko tey doomi sa jaam bu góor boobu na amati ko tey doomi sa jaam bu jigéen anta yow xalaqtahu bindoon nga ko wala saqtahu te nga wërsëgaloon ko wa anta yow amattahu rey nga ko wa anta te yow tuxuyi da nga ko dekkal wa anta te yow aalamu yaa gën a xam bi sirrihi ci lu nëbboom wa xalaaniyati ak ak lu feeñam suñu boroom kii day sa jaam la boo xam ne sa ñaari jaama ko jur dalaa soob nga sàkk ko di ko wërsëgal ba tey mu soob la nga jële ko fi te bu ëllëgee yaa koy dekkal yaa koy dekkal sax ci biir bàmmeelam yow nag yaa xam biiram ak biteem ji naa ko dikkal nanu la sufaha am mbir mu ni way tinu la wóññeel ko parce fii naa yàlla na nga nangu sunum tinu fii ci moom danoo ñëw di la ñaan nga tin ko kon nag yàlla yàlla na nga ko tin ngir nun allahuma yow buur bi innaa naka nun innaa naka nun nas tey jiir danoon sàkku ak musal bi xaab li jiwaari ko ci sa buumu kolëre la wóññeel ko innaka naka yow du fayin borom matal walare nga wasimat ak walare suñu borom dan lay ñaan nga musal ko yow mi nga xam ne am nga walare ci koo xam ne gëm na la rek wéetal la doo ko topp dara kon nag yàlla yàlla na nga ko musal allahuma yow boobu xii yàlla na nga ko fegal min fitna xabri ci fitna yi bàmmeel wa min xasaabi jahannam ak ci bëggalu jahannam allahuma yow boobu ixfir yàlla na nga jégal la hoññal ko war xamate nga yërëm ko wax fa te nga baal xan walis ko waxaafi yi te nga jàmmal ko wa akrim te nga teral nuzulahu ak barandeelam wa wasix te nga yaatal madxalahu ab tàbbikaayam wax silfu te nga sang ko bi maa in ci am ndox wa saljin ak galaas wa baradin ak yóor taw yóor wa naq yi te nga setal ko minal xataayaa ci ay ñaawteef kama yu naqaa ni ki def setale ak saw bu mbalaan ma al abyadu may aji weex mi ne dana si ci ab téer suñu boroom yàlla na nga ko fegal yàlla na nga ko musal ci fitnay bàmmeel ak fitnay sawara yàlla na nga ko jéggal yërëm ko baal ko jàmmal ko yàlla na nga ko nganale nganale gu tedd yàlla na nga yaatal bàmmeelam yàlla na nga ko jéggal ba mu set wecc wecc ci xeeti ñaawteef yi loolu mu ne nga sangi ko ndox ak galaas ak taw biir yëpp moo lim ci teg ci satlu ko ci ay ñaawteef ñoo yemoo dong ñaan rek yàlla jégal ko ñaawteef yëpp mu set wecc mel ni malaan mu weex moo fudd rek ba mu set ba weex tàll wa abdil yàlla na nga ko wecceele daaran kër xayran gu gën min daari ci këram ga wa ahlan ak ñooñ xayran ñu gën min ahlihi ci ñooñam yàlla foofu mu la fekk si ci àllaaxira yàlla na nga ko fa defal kër gu ko tax a fàtte kër gu àddunaam nga ak ñu baax ñu ko wétli ñu ko tax a fàtte ay soxnaam ak ñam amoon ci àdduna wa zawjan ak soxna xayran su gën min sawji ci soxnaam na nga ko defal foofu sax ay soxna yu gën soxna yam amoon allahuma yow buur bi in kaana dem nekkoon na muhsinan di aji rafetal fasit yàlla na nga dolli fi ihsaanihi ci rafetalam nga wa in kaana dem nekkoon na musian di aji ñaawal fa tajaawaz yàlla na nga jéggal xan walis ko suñ borom bu fekkee mi ngi doon def lu baax yàlla na nga ko nangu te ful ko bu fekkee dafa doon ñaawal nag yàlla na nga ko ko baal bañ ko ko jàppee allahuma yow buur bi innahu naka moom xat na sa la wàcc na gan bi ka ci yow wa anta teew xayru man zoolin yaay ngeen ji ku ñu wàcc gan bi ci moom faqirun aji aajo wala ilaa rahmatika jëm ci sa yërmande wa anta teew ganiyun aji doylu nga xan xasaab yi walis mbugalam suñ borom suñ waa ji day tey sa gan la te yow kat yaa fi gën a mën gan te mu aajo woon nga ganalee ko sa yërmande bu ko mbugal nag ndax boo ko mbugalee du la jariñ dara te na nga ko ganalee yërmande ndax moom boo ko defalee mu jariñ ko te yow du la wàññi dara allahuma yow buur bi sabbit yal na nga saxal xindal masalati fa laajug malaayika yi mantiqahu aw laamiñam wala tabtalihi yàlla boo ko nattoo fii xabrihi ci bàmmeelam bi maa ci loo xam ne laa taaxata déet kàttan la di ko ñeel bii ci moom suñ boroom buñ ko dee laaj ci biir bàmmeel na nga ko dimbale ba mu tontu laajug malaaka ya te bul ko teg ci bàmmeelu mukk dara loo xam ne da koy tiis du ko attan allahuma yow buur bi laa taxarim naa yàlla boonu xañ ajrahu ab yoolam yàlla nin ko waajale jullee ko jébbal ko yàlla boonu ci xañ tuyaaba ma yàlla na nga ko nangu te fay nu ci tuyaaba
ba tey sunu boroom musiba mi ngeenu teg ci tàggoog sunu bokkum jullit mi moom it yàlla na nga nu ci bindal tuyaaba wala taftinnaa te yàlla boonu fitnaal ba adoxoo ci gannaawam mooy musiba mi ngeenu teg ci bi nga ko fi jëlee yàlla bu mu nekk sunu fitna juy tax nu lay fàtte mbaa nuy def yitte ci lu jëmul ci yow yàlla ba tey sax daal nee nañu fitne àdduna moom bokk na ci yittewoo lu bokkut ak yàlla kon nag yàlla yàlla nga nu may rek nu bañ a yittewoo lenn lenn lu may yow
taxul da nga wax xaasali bi isdi kulli takbiratin ci gannaaw bépp kàbbar nee na boo toppee ni mu la waxee moom téere bi moom boo kàbbaree boo wax lii da ngay kàbbaraat beneen dellu ko waxaat kàbbaraat beneen ba ca bopp ñeenteel ba nag li neex itam jël génn ñaan nag ni ñu ko waxee woon léegi wa taxul da nga wax ba xam rabi xar ci gannaaw kaabaru ñeenteel ba léegi nag boo kaabari kaabaru ñeenteel te bëgg a taaye xam nga doo toog waaye da ngay taxaw taaye mooy ñaan ngay ñaan bala ngaa sëlmal rek bu la neexee def ko bu la neexee bàyyi mooy gii mu lay bëgg a wax nii tàmbalee ci allahumma yow buur bi ixfir yàlla na nga jéggal li hayyinaa ñeel sunu aji dund wa mayitinaa ak sunu aji faatu wa xaadirinaa ak sunu aji teew wa xaayibinaa ak sunu aji fàddu wa zahirinaa ak sunu gone wa kabirinaa ak sunu mag wa zakarina ak sunu góor wa umtaana ak sunu jigéen naka naka yow taalamu da nga xam mu taqallabanaa sunu wëlbatiku ci mbir yi wa matwaana ak sunu sax yàlla yàlla nu boole baal nun ñëpp ñi dund ak ñi faatu ñi teew ak ñi teewut ñi gone ak ñi mag ñi góor ak ñi jigéen yow kat yaa xam sunu lépp bu ndee nguti ci mbir yi ak bu nee teg lépp yaa ko xam wali waali diina ak ñeel sunuy waajur wali man ak ñeel ka nga xam ne sabaxanaa jiitu nañu bil imaani ci gëm wali muslimin ak ñeel julli ji góor ya wala muslimaati ak julli jigéen ya wala muminina ak way gëm yu góor ya wala muminaati ak way gëm yu jigéen ya al ahyaa yi di way dund min huuj ñoom wala amwaati ak way faatu ya suñu borom yàlla na nga baal suñuy waajur yàlla na nga baal ña nu jiitu woon ñëpp te gëm la moo xam ñu nekkan ci lislaam la mbaa ñu jiitu woon ñooñu te nekkan ci diine joo gërëm rek baal ñëpp rek ñi dund ak ñu faatu allahuma yow buur bi man képp koo xam ne ah yee taxoo dundal nga ko min naa ci nun fa ah yi yàlla nga ko dundal xalal imaan ci gëm wa man koo xam ne tawa fay taxoo faat nga ko min naa ci nun fa tawa faw yàlla nga ko faat xalal islaam yi ci islaam su borom nun ñii koo fi bàyyee di muy dunda ni yàlla nga ko saxal ci gëm la ak topp la ko ci xam ne yaa ngi ko fi jële itam yàlla nga ko may mu yóbbaale imaan ak sa ngërëm wa ashidnaa yàlla na nga nu texeel bi li xaayi ko ci sa tase wa tayib naa yàlla na nga nu teeyal mu yàlla na nga nu laabal bi mawti ñeel dee wa tayib fu te nga teeyal deega la naa ñeel na wajaxan yàlla na nga def fii ci moom déegi raaxatanaa sunu nooflaay wa masarratanaa ak sunu mbég su ma tusalli mu topp da nga sëlmal nag da ngay daaneele suñu boroom yàlla na nga nu may texe ci bundee taseeg yow na na tase ga neex doon texe yàlla na nga nu laabal balaa deex a dikk te neexalal nu déegi ba nga xam ne déega dañ ciy am noflaay ak mbégte foofu nag la yem nag nga daal di wax asalaamaaleykum
nee nañu kenn ci gaa yu baax yi nee na soo bëggee sooy faatu saw làmmiñ tooy xipp ak tudd yàlla na nga taxoo juróom benn yii mooy booy tàmbali jëf ju ne na nga wax bismillahi boo noppee ci jëf ja wax alhamdulillahi bu la mbir dëgmal see moo xam ne moo sib la neexu la nga wax laa xawla wala quwata illa billah su la musiba dalee ni ki faatule nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun soo dogoo ci mbir bu ëllëgee baa bu waxtu sàngamee nga bañ a fàttee wax insha allah saa yoo defee bàkkaar itam daal di wax astaghfirullah juróom benn yooyu lenn ci way xam ñu nee na soo ko taxoo daal sooy faatu soo làmmiñ day tooy xipp ak tudd yàlla
wa in kaana ndem nekk na imraatan di jigéen xultu nga wax ne allahuma yow buur bi innaha naka jigéen ji amatu ko sa jébbéera su ma tatamaa daa topp da nga wéy bi zikriha ci ak tuddam xaalata anis ci jigéenal nee na nag ñaan ngee ñu waxoon ne moo ñëw ci téereb Malik ba mbaa ñaan gi nga jàng léegi sax ci yaxul téere bi ñoo ci yemoo góor a moom loola bu dee jigéen moom ni ñuy waxee ci arab ci jigéen day wuuteeg ni ñuy waxee góor bu dee ñaar mu soppiku bu dee mbooloo mu góor mu soppiku bu dee mbooloo mu jigéen mu soppiku léegi nag ñaan goo mën di wax da nga cee sàmmonteeg loola nga xam ne foo waxoon ne allahuma innahu habduka allahuma innaha amatuka lay doon foo waxoon wa bun habdika wa bintu habdika lay doon foo waxoon wa bun amatika wa bintu amatika lay doon foo
loolu nag bu dee ku jàng arab moom da koy yomb bu fekkee jàngul arab nag benn mu seet ñaan woo gi ñu wax ni moom la alimaamu malik gën a taamu ñu koy tuddee du xaaw abi xurayrata te it moom gu gàtt la mu jox ko koo xam ne yeewu na mu bindal ko ko ci bu dee jenn jigéen ak bu dee ñaar ak bu dee mbooloo mu góor ak bu dee mbooloo mu jigéen ak yépp daal mu bindal ko ko noonu ba mu leer ndegam yitteeli na ko noona wala mu xool ko ci téere sëñ Suhaybu ba radiyallahu anhu ba xam andee na ko ci teqale noona am déet li mu bëgg a wax fii nag mooy ndegam ba muy góor da nga koo ñaanaloon yàlla may ko soxna mbaa ay soxna yu gën soxnaam yowoon ci àdduna bu dee jigéen moom doo ko ñaanal yàlla wecceel ko jëkkër ju gën jëkkëram jëwoon ci àdduna ndax xëy na mu taamu jëkkëram jëwoon ci àdduna foofee ca àjjana nee nañu nag bu fekkee ne jigéen ji amoon na ay jëkkër yu jëkkër ka nga xam ne moo ko mujj yore rek xam ne ci bu mu séyam la mujj kookaay doon jëkkëram ndegam bokk nañ tase ca àjjana fa ñu wutee nag mooy bu fekkee amoon na ay jëkkër yu jëkkër te ba muy génn àdduna fekkutoo mu nekk ci bu mu séy kenn loolu nag la borom téere bi wax naa xayra an naka ndare naka yow laa taqulu doo wax ne wa abdil haayal na nga ko wecceel zawjen jëkkër xayran ju gën min saw jihaa ci jëkkëram jëwoon ci àdduna li an na xaa ngir naka moom xadd takkoon amaana mu nekk zawjan di soxna fil jannati ci àjjana li saw jihaa ñeel jëkkëram jëwoon fi duniyaa ci àdduna te wa nisaawul jannati jigéeni àjjana maqsooraat ñu ñu gà lañu xalaa aswaajihinna ci seeni jëkkër laaya bu xiina duñu sàkku bihim ci ñoom badalan genn wecci war rajulu te góor moom xat yekkoonu amaana mu nekk laxoo ñeel ko zawjaatun ay soxna kasiirat ñuy aji bari fil jannati ci ajana wala yekkoonu te du nekk lil mar'ati ñeel jigéen azwaajun ay jëkkër nee na góor moom mën nga koo ñaanal yàlla may ko ay soxna yu bari yu bokkut ak soxnaam yowoon ci àdduna ndax xam nga ne góor moom mën naa bari ay soxna waaye jigéen nag moom da nga mënta weesu jenn jëkkër rek te jigéen yi àjjana yi ñoom seen jëkkër yi woon ci àdduna la ñuy taamu moo tax kon ñaan gi mu la wax ni la moom moom la rafetlu moom mi taalif su fekkee googu ngay jàng baax si ci di ñaanal jigéen bul ko ñaanalaale yàlla wecceel ko jëkkër ju gën jëkkëram ja woon déedéet kon na ngay tëb wa abdilha zawjan xayran min zawjiha loolu da nga koy tëb bul ko waxaale wala ba asa ayut an tujji maxa bu dee fi boole aljanaa isu tàddiya fii salaatin ci ak jullee waaxidatin guddi genn wa yëli ya tey sasoo al imaama ilimaan ba ar rijaalu góor ña inkaana ndem nekk na fiihim ci ñoom ni saawun ay jigéen daa wax ni ayut ñu boole ay néew jullee ndoo leen waaye daa wax ayut rek waaye ak sopp la dañoo bëgg sax ñu boole leen jullee ndoo ndax ñi am barke seen barke sarca ña ca des su boobaa nag bu fekkee da ngay teg benn tegaat benn mu sësaloo jëm ca xibla kon góor ñi nga njëkk a teg ba ñu jeex nga door a teg jigéen ña nga xam ne tey bu nekkoon genn góor genn jigéen da ngay njëkk a tëral góor gi tëral jigéen ji ci kanamam mel ni jigéen jaa ko jiite te fekk na jigéen ji jiitewul góor ga daraja ji mooy sësoo ilimaan bi te góor gi moom la ilimaan taxaw fi kanamam jigéen ji nag nekk ci kanam góor ga bu fekkee dañuy ay góori góor ak i jigéeni jigéen na góor ñi tegaloo nga tëral góor teg góor ci kanamam teg góor ci kanamam bañ jeex nga door a tàmbali teg jigéen ña jigéen ña tegaloo noona su fekkee xale bu góor am na ci sax xale bu góor bi mooy jiitu jigéen ñi xam ne kon da ngay teg góor ñu mag ñi door caa teg xale yu góor yi door a teg nag jigéen